gannaaw bi nu sante yàlla sunu boroom cant gu yelloo jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy sayidil wujud wa alimi shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ñaan yàlla sunu boroom yal na yàlla doole ràng ay garaate ki maqaama nga xam ni mooy sunu wasila suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mawlaana di cheikh ahmed tijaani sharif radiallahu taala anhu ngi yëkkati nuyoo yu tedd yu sell di ko teg ci kaw nuyoo yu tedd yi sell yi jiitu te mooy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàcce ci jataay bi yàlla na ko yàlla wàcce ci jataay yu mel nii yépp ba jàmm jooju wër àdduna bi yépp ngi jiital ci nuyoo yi ni nuyoo ak ziyaara yi kilifa jataay bi di sangu jataay bi di sunu sëriñ di cerno xaamidu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal yàgg gi itam yàlla na ànd ak wér waaye yàgg googu ànd ak wérit saa yu geestoo yàlla nañu gis ci wetam ñu ñépp ci barke yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nuyu ko ziyaar ko bu baax nag ci bis bi nuyu kilifa yi toog ci zaawiye bi yépp bàyyiwuñ kenn nuyu suñu sëriñ yi jëkk a jël kàddu gi te mu rafet lool te doyoon sëkk موي الاستاذ عبد الله مباي تبارك الله نيب خام كو سي خام خام بو رافيت اك من جانغالي اك ليوات نيمي جانغالي با نيب من كو ديك نيو الامام العالم العلامه امام موسى جاي mu bal ma ci kaddu gi may bëgg wax ci moom moom yaram rek ak tegginam ak maanaam kàddoom rek ni muy joxe kàddoom rek doy na jàngale te loolu dafa am solo ndax yonent bi loolu la ko yàlla waxoon walaw kunta fazzan xaliisal xalbi lan fadu min xawlik su fekkoon danga nekk ku gaaw a mer nekk ku ñaaw jukko saxaaba yi duñ la wër niñ la wëri kon moom it maa ngi koy nuyu baax di ko ziyaar gis nga di nuyu kilifa yi fi toog yëpp imaam Ibrahima la maa ngi lay nuyu imaam sàmba ak waa zawiye bi yépp di nuyu jigéen ñi soxna yu tedd yi macha allah soxna yi jàmbaar lañu gis nga li nekk ci biir zawiye bi ci ay jigéen li nekk ci biti ci ay jigéen ceerno mën na ko ñaar ñu ngi toog toog toog bu jekk ñoom it di déglu ndax xam na ni li ñuy waxtaane ci lañ bokk xare badar ndax am na xare badar ñu bari leen yaakaar di góor ñi rekk a dem déedéet am na ay jigéen ñu dem yéen jigéen ñi am na ñoo xam ne dañoo àndoon ak yonent bi ànd ak saxaaba yi dem ci xare ba ñëw ni yonent bi dañuy ànd ak yow dem ku nu jam ci yéen ñu faj ku soxla ndox bu dogu jotee ñu jox leen li ngeen am ci sunguf barewul waaye bu ndogu jotee wala xëdd ñu toggal leen ko yeneen bi ni leen ay wa ñu ànd ak ñoom dem kon jigéen yi itam ay jàmbaar lañ dama doon wax ni gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax gi mu baax moom yonent bi ci aaya bi ma jàng léegi alquran wax ko walaw kunta fazzan xaliza alqalbi lan fadu min xawlik moo tax bi badar jotee yéeféer yi mat ñaari junni ñetti junni départu yonent bi ñuy juróomi téeméer ndax badar bi ñuy départ juróomi téeméer lañ bi ñu départee génn dëkk bi ñu am information que ni yéeféer yi ñaari junni lañu ak lu topp naafeq yi ni ñaari junni juróomi junni juróomi téeméer mënu leen a dékku ñu commencé di rocceeku ndànk di ñëw di déy sang bi naan ko na inna naa la awratun xam nga ci ci chartu xare dafa am yoo xam ne bu la dalee ci sa kaw doo dem bu sa jabar feebaree doo dem looloo tax xare badar bii Ousmane Ibn Affan demul ndax booba dafa fekk Roqaya di doomu yonent bi di soxnaam feebar Ousmane jël alal ju bari jox yonent bi ni ko maa la ko dimbalee ci xare bi takk naa pour ànd ak yow yonent bi ni ko wàcc na la doo dem mu ni ko lu tax mu ni ko sa sama sa soxna dafa feebar sama doom Roqaya toogal nga garde ko mu ni ko damay dem mu ni ko doo dem ak ñeneen ci saxaaba yi ñoo xam ni am nañu gàllankoor pour dem mais bi yonent bi dee génn ak Ousmane topp nañu yonent ba ci buntu dëkk ba yonent bi naan leen wàññeeku leen ñu ne ko duñu wàññeeku dañuy ànd ak yow ba mujj ñu sémboo seen rangooñ di jooy yonent bi ne leen dem leen gis ngeen dégguñu jam xur wu nu traversé tiyaaba junu junu yàlla di bindal ñun ak yéen ñoo koy bokk dem leen toog innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa yàlla dañ leen fay gaa yi soogaam di wàññeeku li tax nag jullit ñi di ñetti téeméer ak fukk ak ñett bi naa feqi rocceekoo génn ñooñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa jikkoom ju baax jaa tax ولو كنت فزا خليز القلب لانفضوا من حولك يا نيكو بو نيكون كو غاوا مر نيكو كو نياو جيكو نيكو كو خات كون صحابي فسيين اندك يو بدر نين لا وري دونو وري دونو لا وري نونو موتاخ كليفه داغي نوي كليفه dangay noy motax setem ba Sidi Cheikh mat tijani Chérif ba ke seigne Babacar dee tag dafa ni fa hayyinun layyinun xalxan wa fi khulukhin lahu mahabbatu sifqi fi muhayyaahu li tax mu nek hayyin layin dafa don mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax kilifa go gis mu khat khat gawa mer matul kilifa dafa am benn sëriñ ngeen baal ma mu jàngal benn taalibi diir bu yàgg taalibe bi feebar tollu diggante wóolootul boppam mu woo benn magu taalibi ni ko xam naa ni damay faatu mais su ma faatu suñu sëriñ bi bu ma jullee taalibi bu mag ni ko loolu duma ko wax luy loolu kii nga xam ni dañ koy jëlee dëkk ak dëkk muy jullee ji nit ngir yaakaar ko ñuy indi néew dëkk ak dëkk di ko tëral fii mu leen di jullee yow nga ni bu faatoo bu mu la jullee boo faatoo bu la jullee lu tax mu ne ko sëriñ bi def naa ci moom diiru fukki at musuma gis nit tooñ ko baalu ko mu baal la te jullee nit tinu la diggante jaam bi ak boroomam te ku dul baale kenn du la baal balay baalal kon bu ma dee bu ma jullee taalibe bu mag bi ni ko loolu ñemewu ko wax mu ni ko ah wasiya de wasiya la de maa la ko dénk te jàng nga ca bàqara fa man baddalahu baadama sami'ahu fa innama ithmuhu ala allazina yubaddiluunahu bu fekkee sëriñ bee la gënal sa bàmmeel ay ca mu ne ko danaa ko wax boo deewee boo ma jiitoo mu dee ñu sang-sang tëral ci kanam mbooloom yëpp taxaw comme jàkka ji ñun taxaw sëriñ bi bëgg a dem taalibi bi xëcc ko ni ko nee na woon nag bu bu faatoo bu ko jullee mu ne kon am na ci droit nag keneen jullee keneen jullee ko bañ dem ci kër ga mu woo taalibi bi ni ko waaw waxu la lu tax mu ni woon bu ma ko jullee mu ni aha kay wax na ma ko mu ni ko lan la mu ni ko nee na def na ci yow ba mu nekkee xale ba ni mu nekkee mag musul gis nit tooñ la baalu la nga baal ko te comme da koy jullee danga koy tinu digganteem ak boroomam comme danga koy tinu digganteem ak boroomam nag te daawoo baale ku dul baale boo baaloo walla nga baalul kenn kenn du la baal te dama bëgg yàlla baal ma mu ne ko wax na dëgg yonent bi nag noonu la meloon Seydi Xaaji Malik ba mu koy kañ dafa ne walay sa xayrul waraa yajzi bi sayyi'atin يعفو ويصفح صفحا عن مسيئهم الا جماع نين سمو واجي باخ نينكو مودو كان من سيدنا محمد نينكو لوتاخ ناني مو باخ من وليس خير الورى يجزي بسيئه من نغنجي من سيدنا محمد مسل فيون تولو نياو سوكو ديفه لو نياو لو رافيت لا لاي ديفال سوكو ديفه لو نياو موم يونتي بي لو رافيت لا لاي ديفال looloo tax ون téye woon saxaaba yi yaafu wa yasfaxu da nga koy def dara yaakaar ni yëgu ko fekk yëg na ko mu ngi koy jéllale mu ngi koy jéllale nee na loolu moo tax jikko jooju mu amoon moo tax mu xëy rek ñëpp dal ci kaw yonent bi maanaam saxaaba yi daanu ci kawam ngir sopp ko ngir bëgg ko wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal waraa wa liman ajaaboo nay la xayra ولمن أجل نيل خير مرامي فمل علينا ربي حسن ختامي بشر الحاج مالني وبخيله برب بالما دي ديما دانيال جوخ سيرين وبخيله وبخيره جلب الورى ولمن أجابه نيل خير مرامي وبخيله موي بدر وبخيله موي بدر yonent bi dafa woote am gaa yu sérieux xam ni kii li muy wax lu sérieux la te kii tamit ku sérieux la ñu ñëw ànd ak moom gëm ko ni ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Babacar ca la bokk Ousmane ca la bokk saadu ca la bokk saidu ca la bokk aba ubadata ca la bokk talatu ca la bokk abdurahman ibn awf ca la bokk ali ibn abi talib ci la bokk omar ibn xataab ci la bokk ñoom ñëpp dañ ko xool càmbar ko xam ni kii kenn melul ni moom ñu ñëw tuub ànd ak moom ndax yiwam waaye am ñoo xam nag alxaylu dafa war fas jël ngànnaay xeex ak ñoom ñu dugg ci diine lislaam waa badar ci la bokk xare bii muy xare badar Baye Abdoulaye wax na ko léegi mboolem xare yonent bi def bii moo ci gënoon metti ndax yonent bi dafa génn nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett am na ñu warul juróom-ñaari fas lañu wax lañu am juróom-ñaari fas lañu am ak ay quelques jaasi yàlla xam ni ñii xare bi du doole moo leen génnee pas-pas ak bëgg yonent bi sopp yonent bi ak gëm yàlla moo leen génnee yàlla ni maa ngi xaar comme génn ngeen maa ngi xaar ba xam génn gi dëggu ci yéen wala dëgguwul ci yéen ndax bi ñuy génn mën nañ juróomi téeméer juróomi téeméer yi am na ñoo xam ne génn ñu woon ngir dëggu dañoo mujj wàññeeku yàlla di xool trois cent 313 yi ba ñu taxaw jàkkaarloog ñaari junni pour songoog ñoom xeex yàlla ni dëgg-dëgg ñii nag bokk nañu minal mina minal eh, muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا لين دوما لين سيتان كوم ما تخ نين ген نارا سونغو ني لغي سونغو لين دو نين دان من ماي دان واي داماي خار با نين سونغ بي غاي سونغو نك يالا خامني في بو سيتاني مير مي نياو مو واتي اي ملائكه سي كاو اسمان سي اي ملائكه لا واتي ay malaka la wàcce juróomi junni malaka yàlla wacce nako xare badar pour ñu jappali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam te ben malaka dong mënon na régler situation bi waye wan yonent bi niko mën bëgg na la waye wan ko niko xamna ni gaay nga àndal déggu nañu hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin min malaikati murdafina وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم أن ينخمني وما النصر إلا من عند الله خرب ديابار سيدنا علي مو بو نجيك نيتلي ملاكي مني ملاكي بني واج نينا فيما توك دما جيك بياغ نجلو لو فور جوغي تي كاو اسمان ني فيف نينا ما جيك بياغ غيس اي جيم يو خامي نيوم نييب ني ني سولون سول ييري يو ويخ داف اي كالا ميتيلو ميتيل جيل كالا يي ورليكو في مغي yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa ngi dégg Seydina Ali tamit nee na mi ngi dégg ak saxaaba yi alaaji Maalik nettali na ko waqad samia saxaabatu xawla jibril wa yaa xaysuumu aqdum bil mazuni nee na jibril keroog bi mu ñëw fas wi mu war xaysuum la tudd ci xare bi nee na xare bi tàkk gaa yi rey ci ñoom juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukki yéeféer jàpp ci ñoom ay jaam juróom-ñaar fukk fet jam ci ñoom juróom-ñaar fukk muy xare bu metti ci ñoom xare boobu nag tey moom la Cerno woote jullit ñi fii ndax ndam li gën a rëy ci lislaam keroog la gàcce gi iblis am gi gën a rëy ci kaw suuf keroog xare badar la koy la ko am beneen gàcce gi muy amaat gi gën a rëy ëllëg yoomal xiyaam la koy amaat bu nu dekkee yonent bi taxaw di nu dugal àjjana naan ummati yi ummati sama xeet ñun ñépp ñu jaar ci gannaaw yonent bi dugg aljana kon bis la boo xam ne bis bu màgg la bis bu rëy la Thierno di ko woote at mu jot damay wax ni Thierno bis yi muy woote yépp dafa jara woote fukki fan ñaar ci gàmmu juddu Seyduna Muhammad Isra wal Mi'raj mooy bisu julli fukki fan ak juróom-ñaar xare Badar xay safar fukki fan ak juróom-ñett muy katmiya ci weeru safar yii lañuy ñuy woo fii muy ñeent bi yii ma la wax ak laylatul qadri bu ko weesoo beneen bis dong lay woote mooy bis bi nga xam ni ki tax mu xam yooyu ki tax mu sopp yooyu ki ko xamal ci yooyu loo xam ni nekkul ci téere kookoo koy gane si fii dikkan kan Cerno Muhammadul Bachiru ndax mbir yi nag soo bëggee xam li nek ci bir mbir yi eh da nga am kilifa de boko amul do ko xam da nga aha jërëjëf kon loolu motax bis yoy rek lañu wote di ñaan yalla rek yu wi ci am yalla ñu ko yalla defal ci barke yenenbi sallallahu alaihi wasallam sallam ñu ngi jégalu dañ doon bëgg rek ubbil sëriñ bi su ko defee mu daal di dugg ci liggéey bi waaye li imam Abdoulaye Mbaye rek waxoon doy na li imam Moussa Gueye rek waxoon tubaarakallaahu doy na nga xam ne moom bis bi bisam la imam Moussa tubaarakallaahu